Wanjaay dégg naa premier décembre Omzo Dollar day génne album même deep même ak bés dugg na si coow li xam nga daa bëgg buzz moom mais boy sa album fu mu toll hey duma rappeur man rubekat la volume 2 secret set ba tey ce boy playal quoi <laughs> waa ok waa ak lu break seen classe bi ñoom foo leen mujjee bon après magal gi lañu waxoon peut être après gàmm gi bu ñibbisee mais wax lu bëri comme Marco Vey mag ñoom ñu tëddi casier bu sëdi parcours bu sëdi ay boo sa fari toj sa bopp nangu ko bari dama toog lu bari PDI bari CDI sab ay way dama ko yëg rek toog ci ndaar pourtant mun naa ci las gaa laa ko gisee biir topp kaa Aziz Ndiaye nag du ci dugg ndax Aïcha Rasoul kenn musu ko tudd mais Ada Fass booy nu mu def ak bi nii nii tëggal nañ ko combat mokkan mbir bi dëkk parce bu dee sos la de ku ne mun na daan Amadou Ba suñu président ñun de Sonko rek 2024 polémique leen sori fii toppandoo kële ne kële sama yoon nekku si bëgg naa sori fii sama life dafa triste amatuma alibi juróom-ñaari at laa toog rabuma accident atu jeel li ngay wax safuma rab di dose fis naan danga ma may baaraam mujj naa yu ma ruyal ne que maa ngi ñëw koj ma si el bi xam ne maa ngi bleu sangale kër si gën a ñëw est-ce que sa moom dana sax wala jarul may àdda ñëw ma def tuuti biif di million mode sport corniche bani ana yow ana man yaa ngi nii maa ngi nii seen rewaande jeex nga tëdd nday pen bi ni nga may saf mareen no mer na danga ma bañ fils de pute pareillement bayal rab nga dem taasu honnête sama mère